sëriñ bi nee na mi ngi leen di jottali ay kaddu kàddu yu bàyyikoo ca sëriñ Mbacke Gueye xalifaab sëriñ Mabé Gueye di jëwriñu seex yi aju ci seex Moustapha al Karim nee na di leen nuyu di leen nuyu turu sëriñ Amsatou Gueye muy rakkam di jëwriñam te kàddoom di wasilaaw Serigne Moustapha Gueye mii di buntam ci sëriñ Touba nee na Serigne Mabey nee muy yëkkati kaddu yi ci turu sëriñ Ndiaye Gueye mii nga xam ni tey jii moo fi toogal buntu kër Serigne Mabey moo fi Serigne Mbacke Gueye mooy kilifa ya fa des mooy Serigne Mabey ci jataay bi nee di leen nuyu bu baax. te di leen siyaare di ñaan bu baax sëriñ Mountakha Bassir yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mu naal ci liggéeyal ko Serigne Touba mu àggale ko noonu noonu lañ koy ñaanale sunu jàmbaar ji Cheikh mu Al Karim yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd akuk wér ba li mu yéene liggéeyal Serigne Mohamed ak Serigne Modou Moustapha ak ñi nekk diggante bi yàlla may ko mu def ko ba àggale ko ne di jël nuyoo boobu di ko jaarale ci Baye sëriñ jóob Makhtar di ko nuyu bu baax di nuyu délégation bi mu àndal bépp nee na bu ci tuddee Baye Kamal Dia ak Baye Serigne Janaar ak seex Moustapha Bassirou Lo mi yor kàddug sëriñ bi dana mën a jotal mbooloo mépp sëriñ bi nee na ñoo ngi leen di nuyu nee di leen xamal ni sëriñ bi nee na xolam sedd na guy xelam dal na yaakaaram dolliku na nee na yaakaaram ci seex Moustapha Karim da koy fas yéene di ko dundal diir dundam du arrière du yuqat du yox du dellu ginnaaw mukk te ànd na ko ak njabootuk sëriñ Mabéye gépp nee na la ko sëriñ bu tedd bi waxoon kere bi Seex Moustapha ñëwee ngàcc nee na sëriñ bi da ko ni di sëriñ Amsatu da ko ni Mbàkke mbooloo dey ñépp njabootug sëriñ Mabéye lan waaye sëriñ Mbacke Gueye mii toog nee na bu nu ko woon bu leen jox sëriñ bi loxo du nu ko jox loxo benn taalibe rek nga fi am muy sëriñ Mbacke Gueye mii toog waaye li ci dëkk bi ak mbooloo mi ni mu toll sëriñ Mbacke géy nag moo ko téye ci loxoom loolu nee na defe na loolu def na yëngu bu rëy rëy keroo nee na loolu di cant yàlla tamit ci buntu kër Serigne Mabéye bépp nee na ndax léeg-léeg nga dugg ci buntu kër ay wuute yu baree bari di fa am wuutee xalaat di fa am wuute ay jëmukaay it di fa am waaye buntu kër Serigne Mabéye bokk na ci buntu kër yi nga xam ni ci loxob jënn jëmm rekk lay dox ba bi saa taxaw ci kaw suuf nee na loolu lañu fas yéene te ñoom ànd nañ ci ñoom njabootuk sëriñ Mabéye gépp takkoo fas yéene ku fi toogal sëriñ Mabéye ci te sëriñ Mabéye ci ñun di sëriñ Mabéye ci ñun di sëriñ Modou Moustapha ci ñun ci ñun di Serigne Mbacke Mohamed ci ñun nee na loolu moom la ñu fas yéene nee na kaddu gii muy wax nee na waxal na ko buntu kër Serigne Mabey gépp koo fëgg ab dënnam loolu rek nga cay fekk ku ci wéet ak nit wala mu li ko nit loo mu la mën a wax ci àdduna loolu rek a nekk ci moom kon nee na loolu ñoo ngi ko ciy dugal di sant bu baax waa Ahibaahil Khadim ci tuuru kilifa yooyu mu tudd ndax ñoom amul lul sëriñ bi sëriñ bi daf leen a liggéeyloo ci baay sëriñ Mbàkke daf leen a liggéeyloo ci baay sëriñ Mbàkke ñu fas yéene ànd ñoom liggéey bi kon bu ñu leen gisee ngeen ne dann sëriñ bi amuk bëgg ci sëriñ bi arrière leen delluwu leen ginnaaw nee na kon nag dañuy fas yéene ànd ak yéen liggéey bii te ñoom jàpp nañ ni seeni jëwrin ngeen yéen a ngi leen di soññu ndax ñoom day Alaaji Sëriñ Mbàkke Gey mu baax mi moom la yàlla dogal tey mu yor jëwrini seex yi waaye ñoo ngi soññeewaat ci daayira Axbaal Xaddim ci seen pasteef ak seen pas ak seenu doxin li nga xam ne mooy liggéeyu Cheikh Moustapha bi di jëwriñu seex yi axibaayul xadim di section yi di bàngaas yi nekk bitim réew sëriñ bi daa boole ñépp takk leen ci génn buum tey jii bàyyi sëriñ Mbàkke moom la ñépp def kilifa kon loolu ñu ngi def bëggug sëriñ bi bàyyi sëriñ Mbàkke nag ñoom day xam nañ ne moom mat na kilifa sëkk nag sëriñ Moustapha Mohamed fa mu àgg ci boroomam ku mu joxoñ baaraam ni la taxawal ci kanam mbooloo mi yaakaar nañ ni soo ko matul woon dina ko fettali ba mel na mu war a mel kon am nañ xel mu daal bu baax a baax sëriñ bi nee na am na leen lu ci dugal Serigne Mbacke Gueye nee na li ñuy xamal ni nitu yàlla la nee na bi yàlla dogalee ren sëriñ bii wéradi di Serigne Amsatu mu baax mi mboolem ñu fi nekk yëg nañ ko waaye waaye wane na ci xar baax wane na ci baatin nee na keroog bi nu ñëwee ngàcc ba mu ñëwee dafa wax ni Seex Amsatu mii de na ngeen ci dalal seenum xel. yéen ñii di njabootam bu leen tiit bu leen jàq bu leen xalaat dara sëriñ Amsatu mii jógoogu fi yàlla na fi yàgg te wér nee mbax nat moom mii di wax ak moom di suñ maa béy bàyyi sëñ Mbàkke mooy wax ni moom mii wax ak yéen demaguma te sëriñ satu moo may taxaw desal sëriñ maa béy ginnaaw yàlla na fi yàgg ñoom ñëpp te wér ko nee na yàlla def may ko kersaak sunu borom gum ko rusee. ba ñoo ngi am cant yàlla bu baax ci Seex Amsatu ñu yëgal mbooloo mi yépp ni leen am na tawféex bu baax am na feex bu baax nee na la sëriñ bi waxoon ci moom yàlla fekk na ko ci borom daaru xuddoos fekk na ko ci nee na amaa leneen lu ci des kilifa yi fi teew nee na bu nu limee man mii di jot li dinaa juum waaye ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi jaajëfal ñëpp ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp soxna maam bu sa Mbàkke ak Baayil Xaddim yabal na fi délégation yëg nañ leen ñoo ngi sant bu baax ci tur sëriñ bi ñoo ngi leen di gërëm ñoo ne ñu ngi leen di wax dara nag ci Cheikh Moustapha nee na Cheikh Moustapha mii nu fi dajale Cheikh Moustapha day nee na nit nag bu nee baax na bokk yaa ko war a jëkk a wax waaye nit bu nee baax na bu neeb taalibe la buntam ci sëriñ Touba moo ko war a seere te buntam ci sëriñ Touba mooy Serigne Amsatou Gueye te ñun ñii ci jëm wen mi di jot li ci jëm ju xeebu ji yàlla daa dogal sëriñ Mabéye mii di jëwrinam ci buntu kër sëriñ Amsatu waaye ñoo ngi leen di seereel ni alaaji sëriñ Mbàkke Gueye gërëm na Cheikh Moustapha sant na ko sëriñ Amsatu Gueye mii wasilaam gërëm na ko sant na ko ci wéet ak ci wéttali ko sëriñ Cheikh Mbacke Gueye mii caatum sëriñ Mabé yi gërëm na ko sant na ko. sëriñ Mara Gueye muy moom sëñ Mabé yi moom sëñ Mbacke Gueye mii taaw sët nga xam ni mooy seen kilifa ñoom sët yëpp sant na ko gërëm na ko sëriñ Ndiaye Gueye mii di rakkam la muy moom ci axbaayal xadim gii ak di ko séq moom ci ndigali sëriñ bi sëriñ Njaay Géey mii de seereel na ko sant na ko gërëm na ko waaye nee na mi ngi leen di wax ni sëriñ Mabéye mii di jëwrinam ci buntu kër sëriñ Amsatu ñoom de seere na ci yàlla ni bu nu amoon lenn képp ca sun boroom ñu war na koo may nee na mi ngi seere ni nee na yéene na sunu borom jox ko seex Moustapha Gueye alxuraan nee na loolu waxu ko ci réer waxu ko ci jaay ko waxu ko ci lu ko neex waaye aw doxinam ak pas-pasam akuk taalibeem ak jox kër kim jox kër kuy kilifaam ak kuy rakkam mu warmaal la nee foofu rek la ko teg ahi ma xar yura unim balik fiyan kullama asahu yallahu wa najjini wa jamii almuslimina maan wa najji walidatin amina yallahu wagfir lana wallaha wasurma ibana waltumbina wa biya fewli yallahu an hataja waswa iyar ya nar amana faman lana siwa ko antal baru yallahu fi barsakin ma kabrin kullaha wa saran wa mikurubin wa kawqi naji laa taxtabir xaa bi ma laysat bi qaadiratin wala tuqib rajaa fik yàlla waasqina ma min maay kawsari man ni tartahu min jami xalqi yàlla man kaana yursidu saa xayin way saa kufrin wa yansur man yasak muhammadil maskal ahyaari qaidina li jannati yawmal asri yàlla muhammadun muhammadin maskal ahyaari qaidina li jannati qulli yawmal asri yàlla alayhi salli wa sallim daiman abadan wa mam xafaqu li yawmi diini yàlla amin ya rabbal alamina subhana rabbika rabbi sati amma yasifuna wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wa innahu la kitabun asisun lahu mafiratun wa rizqun karimun wa innahu la kitabun asisun lahu mafiratun wa rizqun karimun wa duqila jannata faqad faasa falillahi lahiratun wal ula falillahi lahiratun wal ula wajjatu wajhi bitilawati kitab li maliki wartajib xara sawaab alhamdulillahi alhamdulillahi lasi qad mana bi sikrin qadiru musana naskuru rabbana lasi taqabala min tilawati kitabi unsula naskuruhu ala tawajjuhi darar ila siwana wa kufina man qadar hudan wa nurun wa ridan wa baraka في سكر من تفادر مدركا للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكر حكيم يهني عن المدافي بسمني كونني عبد الله سيد الورى بان لكل من هجاه نويرا كونني عبد الله سيد الورى بان لكل من هجاه نويرا توسلي بالمصطفى مفضلي لقاده taqdiman min al mufaddali inna rasulallahi inna rasulallahi inna rasulallahi faaqal basara wal jinna waamlaak asal faqara barakatul kitaabi abdat kawni khadima man jura nura kawni ani nafal qur'anu ani nafal qur'anu man awat ilal jinaani duna duri aw kabar sadaniyal masaratan tadum fi surati lanfaali abasal karim fi surati lanfaali abasal karim fi surati katabtahu min jaysasin wali rasuli li xatmi jaksasin adiyatan minni li rabbi sukur wali nabi qadiman sa sukur min yalillahi wali daksasin ila duquli janna hati bila san wa kayri finna min daksasin ila duquli janna hati bila san wa kayri finna hanirtu بالجزاء وأجور وبسواء يسا دهور فتن يمات وبيرافع ينو إلي فائس أو سالي ينو إلي فائس أو سالي لنقادة أجور والمصالح بتي وجسبي لنا تيف سيدي مودو مصطفى ci Serigne Modou Moustapha ci teewaayu Serigne Fallou ci teewaayu Serigne Fallou sëñ Fallou jiite julli sëñ Fallou jiite julli gi. da koo jaayanteeg Cheikh Moustapha. nee na da koo jaayanteeg Cheikh Moustapha. ne ko bala maa jiite. ne ko bala maa jiite. da nga may may. da nga may may. ànd ci julli ku ànd ci julli gi. kum jiite. kum jiite. wala kookee. wala kookee. kum jiite. kum jiite. wala kookee julli gu mbokk. wala kookee julli gu mbokk. ñëpp suñu borom yërëm leen bu ëllëgee. ñëpp borom yërëm bu ëllëgee. mu bokk naa ne ko julli googee kat bokk naa ca. kon da koy firndeel ni ko li ma la ko kon ko li ma la leen ko waxoon duñ ko gis waxi Cheikh Moustapha Dia. ruq bi ma bëgg a dugg nag mooy. nee ruq bi ma bëgg dugg nag mooy. te bëriwuma gis ñu koy di bàyyi xel donte sax ñoo ngi koy bàyyi ci xol. nee na bëriwu la gis ñu koy bàyyi xel donte ñoo ngi koy bàyyi xel ci xol. Euh, sëriñ Mabey. nee na sëriñ Mabey Guèye. yéen ak njabootuk sëriñ Mabey gi fi teew yëpp. yéen ak njabootuk sëriñ Mabey gi fi teew gépp bis bi tey seen bisa. nee na bis bi tey seen bisa. barab bii seen baraba. barab bii seen baraba. liñ fiy defit yéen dong lañ koy defal. liñ fiy defit yéen dong lañ koy defal. yéen moom lépp. yéen moom lépp. kon nag man li may wax mooy. nee na kon nag li muy wax mooy. taalibe Serigne Touba yi nga xam ne. nee na taalibe Serigne Touba yi nga xam ni. ban jógee ci seen kër ba ñu ngi ci barab bii. ban jógee ci seen kër yi ba léegi ñoo ngi ci barab bii te demunu di jàppale Serigne Moustapha mii ci liggéey bi. di ànd ak Cheikh Moustapha Gueye mii ci liggéey bi. li may ñaan. nee li muy ñaan. yéenay xam nag fu ngeen koy tibbee. nee na yéenay xam fu ngeen koy tibbee. waaye taalibe yi ne ci base bi moom na seen aajo faju léegi. nee na taalibe yi ne ci base bi moom na bismillah Serigne Ndiaye Gueye mii fii Serigne Mabey di fi bàyyi Serigne Mbakke di fi Serigne Amsatu di fi njabootu Serigne Mabey gépp nee ci loxoom lañ koy tegaat nit ku sel la ku ragal yàlla la ab taalibe murit saadix la am na ngërëmul baayam bu baax ba am na ngërëmul buntu ko Serigne Mabey nee na gis na ni lu dogo yàlla fekk ko ci. kon sëriñ bi fajal aajo yi amin nee na Faatiha ak ayatul kursiw ak xul wallaaw ak fàllaxi ak naas nee ñu ñaan ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ci barkeb Cheikh Moustapha mi borom barab bi nee na Cheikh Moustapha Mbacke Mohamed nee na woon yéen sama ñooñ fu kenn ne te dëggu nee na moo la ñaareel nee na bu dee ñaar moo leen ñetteel nee bu ngeen booloo mi ngi seen biir